ngeen déglu tuuma ji ñu ci seen kaw buñ ci peree dinaa ñëw wax li ma bëgg a wax insha allahu taala ci vidéo boobu dinaa ci def samay commentaire insha allahu taala mbokk yi na leen topp vidéo bi. du këram koy defee gis nga weeru koor yi ba tey maam li maamu lañu teg bàyyiwuñu benn kilifa te lu ñaaw lañ ciy wax Yunus ñuy wax euh, Yunus ak Alpha. ak bébé rassa ñooñu noonu tey nit koo xam ne liggéeyul xëyul gontu nga tëjul sa hôtel ñu lay ak Ahmed Lo Ahmed Lo ak ki nga xamante ne tey Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo la jox tey sa bourse bi nga yor nii tey nga taxaw tey di digat Serigne Touba tey loolu lañu ñu bëgg mu jeex ñu ngi koy wax nag autorité Sénégal bu ñu jeexalul lii ah ñu ne ñoom dinañ ko dem te du ñu bàyyi nag Omar Sall ak ñoom ñëpp bàyyiwuñu benn wahabi ñun nag terewul seen li ñuy dund nañu jaamu li ñuy jaamu ñu bàyyi ñu bàyyi Touba ak Touba mayetuñu kenn muy taxaw di tax Sëriñ Touba wala Alaaji Malick wala maam Limaamu Laay mayetuñ ko kenn. képp ku ñu gisati. képp ku ñu gisati nga taf suñuy kilifa ñun dinañu jubali ba sa kër. billaahi képp ku tafati xam nga yéen ñoom nag ñu ngi bitim réew mais ñoom seen i waajur ñu fii ku ci nekk nag xam nañu fi nga dëkk lii moo amoon li ma ciy wax. may gërëm tey sëñ Mountakha bu sëñ Modou Habib di gërëm tey kilifa yi nekk Touba yëpp ñi ma woo lii ngeen bëggoon defal naa leen parce que lii nii ma def nii am na ñu ko gënoon a mën a def ma koy ñaan nag yéen ñi nga xamante ne yéen a jàng ne yéen a topp mbiru Serigne Touba dam leen di ñaan ngeen arrêté di bàyyi dugg ci live wahabisi surtout loolu maa ngi gërëm ñoom wadd ak groupe bu l'islam bi yëpp ak abonné bi ñuy abonné ah, ñëpp ñuy abonné si ñoom lii nag moom déclaration la dañ koy déclarer pour beneen yoon bu ñu gisatee suba suba par benn kër la ñuy dem fajal ko suñu bopp ah dañ koy fajal suñu bopp jërëjëf mbokk yi lii mooy li nga xam man ak yéen ñoo ko gisandooti yaakaar naa ni façon discours yii njëkkuñu koo gis tey am na yu ko gënoon a xumb am na yu ko gënoon rëy am na yu ko gënoon a fés jaaroon fi xam naa ni soreewul ak discours bii misaal bi ma koy jàppee soreewul ak wenn weñ wu ñëw takk ci kaw bakken bi nga dal di def nii sa loxo pour weñ wi dal di naaw dem yoonam jàpp naa ni discours bi daanaka soreewul ak loola li waral bari na lool bokk na ca bokk na ca ñii di wax nii damaa xamul ay këg sóor lan yu nekk ci gaaraas ba jekki-jekki seen xel dem ci waxtaan ñuy waxtaan ca gaaraas ba damaa xamul ñoo xam ni dañuy wër di yalwaanu ci mbedd yi jékki-jékki seen xel dem ca ñu taxaw arrêté seenam yalwaan pour def ab discours damaa xamul ñum doon waaye ku leen gis xam ni seen wax ji nekkul wax ju mën a eb waxuma la am ngooñ waaye nekkul wax ju mën a yeb ab matlaa lée ëpp solo nag loo xam ni moom la ay wax ci vidéo bi mooy la ma waxoon ca vidéo yu njëkk ya mooy ñun ñëpp ay sénégalais la juddoo fii ci Sénégal yaroo fii ci Sénégal ba toll niñ toll Sénégal gii liñ fi waxoon 1990 ba léegi mu ngi fi tege liñ fi waxoon 2000 ba léegi mu ngi fi tege liñ fi waxoon 2010 ba léegi mu ngi fi ku jeex gis ko mu ngi ci internet bi ñun ñëpp nañ leen duggadoo ci internet bi ñu jeex internet bi mbooleem ñi nga xam ne dañuy askanoo ci alquran ak sunna booba ba léegi nag seeni xutba seeni conférence seeni tafsir seenam njàngale seeni bind seeni téere mbooleem luñ wax. mu nekk ci biir internet bi nan leen dem seet ko ndax di ngeen gis ñu saaga ca mag mu bon waxuma laa mag mu baax seytaane sax iblis ahlu sunna duñ ko saaga ndey fa yàlla yem ak moom ciy wax fa lañ yem ak moom kon waxuma laa nag keneen koo xam ne dañ naan mag mu baax la ñi nga xam ni kay ñooy yore violence bis bu nekk ñuy génn di wax loo xam ne mën naa taalam réew gis nañ ko gis nañ ko dégg nañ ko bis bu nekk ñu ngi ñu ngi koy gis te ñii ci lan bokk ndax xam ngeen ni moos jëmm yi ñu génne def ca ay croix bay wax di jëme ca ñoom yaakaar naa ni am na yeneen jëmm yoo xam ne bu ñu leen defoon noona fii ci Sénégal buñ ko defee midi balaa 14 heures lii xew dina xew ci senegaal waaye ahlu sunna dañoo topp ci njàngaleem yonantu ba alayhi salaatu wasalaam mooy lan mooy dañuy jàngal nit ñi di yee nit ñi di leen woo ci jàmm ahlu sunna xamuñu fitna waaye nag bu fekkentee ni fitna mooy lii la yàlla wax lii la yonantu bi wax alayhi bu fekkentee ni fitna mooy képp ku jóg wax ci yàlla naka sudul noonu ahlu sunna jóg tontul yàlla képp ku jóg wax ci yonantu asalaam dudul noonu ahlu sunna bu fekkee lii mooy fitna fitna ci lañ juddoo kon ci la ñuy yaroo ci lañuy faatoo bu dee lii mooy fitna laa wax wallahi wa billahi wa tallahi ñoo ngi continuer di ko waxaat képp ku teg ci yàlla dara lu dul noonu wala yonantu bi asalaam wala diine jii wala ci sunna si yonantu bi alayhi salaatu wasalaam wala ci ñi nga xam ni ñoo jóg pour dund alquran ak sunna képp yem ca nga bëgg teg ci ñoom dara bu soob yàlla dinañ taxaw tontu buñ demoon ba ruugi pere pour wadd dañuy continuer di tontul yàlla ak ab yonantaam li gën a neex lu nuy mébét mooy bis buñ génnee àdduna dajeeg yonantu ba alayhi salaatu wasalaam dunduk àdduna dunduk àdduna gii jaraluñu mukk dajeeg yonantu bi alayhi salaatu wasalaam durus kuy beñ kon ñu tontu la booy wax ci diine yàlla ji wax ci loo xam bu desee nag li nga xam ne la wax naan moom la ci ak di ko teg ci sëñ diw loola man li ma ciy wax ci commencement bi rek laa ciy wax audio yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi yépp a fi dem leen ndax di ngeen gis ay saaga man naa am nag li ma ay saaga mooy wax ji wax ni ak ñom lañ wara top man na am lolu moo diw saaga bu dee looloo diw saaga ci lañ dëkk insha allah taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh